internet yi ñu bàyyi xel ci seen info point net ak seen info international ñu ngi leen di nuyu fas leen dëgtal li gën fës ci xëtu njëkku yéenekaay yi tey vendredi di 9 décembre 2022 ñu tàmbali kook bés bi le jour ñoom nag dañoo fësal seen xët wu njëkk Ousmane Sonko ak nag euh, tur yamu soppi ci yenn mbedd ci Ziguinchor yi ñu ne loolu nag euh, ñàkk na daal li nga xam ne moom mooy combat ndax Cour suprême dafa jox dëgg kii di bu bu Ziguinchor kon nag loolu Ousmane Sonko euh, amaloon euh, dinañu ko dakkal ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy euh, audition dans le fond bu Pape Alé Niang bés tey bi ak nag ñi nga xam ne ñoom ñooy naataangoom yu kàpp taxaw temm nag di artu kii di njiitu réew mi le témoin fasal ci xëtam wuñ njëkk mbirum ki nga xam ne moom mooy député Amy Ndiaye Gniby ma ñu dooroon fële ci assemblée nationale gannaaw loolu nag ñu def ab taxaw seetlu ci violence bi nga xam ne kon euh, mu ngi am foofule ca assemblée nationale. stade yéen kay fësal ci xëtam bu njëkk mondial deux mille vingt deux ak nag ñaari quart de finale yu tàng jëriñu ne yu war a am bésu ba euh, tey bi diggante ki nga xam ne moom mooy euh, Brésil ak Croatie wante itam pays ba ak Argentine. tribune yéen kaay fësal ci xëtam bu ay compte nag eh, yu Bougane ñu ne nag dañ ko bloqué ñu ne gannaaw Sen TV eh, li nga xam ne nag moom mooy ay compte Zik FM eh, bloqué nañu ko loolu nag ñu gis ci ne kii di Macky Sall daal dafa bëgg daal indil ay jafe-jafe indil gàllankoor ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany ñëwaat nañ itam ci cour suprême bi nga xam ne annulé na décision yi Ousmane Sonko jëloon ngir yenn ci ay mbedd Ziguinchor mu changé seeni tur le soleil yéen kaay fësal ci xëtam bu njëkk cinquième séminaire intergouvernemental ak nag euh, France yi nga xam ne sax dañoo jagleel réew Sénégal lu toll ci cent milliards de francs euh, CFA dikat nañ itam ci euh, li nga xam ne moom mooy contrat d'armement boobu ñuy tudd ci ministère de l'environnement ak ki nga xam ne nag moom mooy ministre Aliou Ndoye di ci indi ay leeral. Dakar Times fa ci xëtam bu njëkk ba léegi cinquième séminaire gouvernemental franco-sénégalaise mu ne nag euh, waa France dinañu dimbale Sénégal lu toll ci cent milliards de francs CFA réew mi fësal ci xëtam bu njëkk mbirum business ak euh, ki e-commerce muy daal njënd ak njaay mi nga xam ne dañ koy def ci internet bi ñu ne loolu nag euh, moom mooy avenir bi libération fësal ci xëtam bu njëkk mbirum euh, collégienne boobu nga xam ne euh, dañ dañ ne woon nag euh, dañ ko kidnappé mardi fële ca Mbacké te sax ay nit yóbboon ko ci oto ñu ne nag moom moom nga xam ne ci quatorze ans la toll mbir moom yëpp kon moom daal moo ko planifié lu Euh, organiser la woon maanaam kenn daal yóbbu ko moo yóbbu boppam ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy ay compte yu Zik FM yi ñu bloqué gannaaw yu Sen TV ñu ne nag lii di fisc bu senegal mu ngay laaj Bougane lu toll ci trois virgule six milliards moom nag nee na yoroo leen dara dikkaat nañ itam ci euh, euh, kon ki nga xam ne moom mooy Fadilou Keita Diop Taïf ak nag Oscar Diouf te ñu tegoon leen euh, loxo ñu ne nag euh, bésub tey bii la ñuy delluwaat fële ci tribunal ci kanamu attekat bi surtout Sud Quotidien fësal ci xëtam bu njëkk euh, OFNAC mi nga xam ne nag Serigne basiru Guèye lañ fa fal muy ancien procureur fi mu nekk nii nag nekk njiital OFNAC bu bees bi ñu ne nag liggéey ba koy xaar ci jamono joo xam ne quatorze mois moo des élection présidentielle bi ñëw laas yéen kay fësal ci xëtam mu njëkk sones nag ak liggéey bu am solo eh, bi muy def ngir nag eh, lii di ndox daal bañ a ñu loolu toll ci cent mètres cubes jour ak nag eh, réservoir yoo xam ne mu ngi ci suuf suul nañ ko ci suuf ak it dix mille mètres cubes yooyu la réservoir yooyu am ab station de pompage bu toll ci six mille trois cent mètres cubes ak yi ni loolu daal tax na ba ñu nekkoon sones mar bi nga xam ne ñii di banlieue bi maroon nañ ko sones dakal na ko l'info yéen kaay fësal ci xëtam bu njëkk ab waxtaan bu am ak kii di Seydou Sané mu dikkaat nag ci coupe du monde bi li nga xam ne moom mooy euh, mbirum gi Mari Sagna ak Casa Sport source a fësal ci xëtam bu njëkk député Massata Samb ak Mamadou Niang ñi nga xam ne nag euh, dañu leen euh, di wër te sax ñoom ñoo dooroon député bii di Amy Ndiaye fële ci fële ci assemblée nationale ñu ne ñoom nag localisé nañ leen wante nag li tax gisaguñ leen ba léegi euh, dañuy jóge bërëb di dem bërëb maanaam tooguñu benn place les Échos fësal ci xëtam bu njëkk tur ya Ousmane Sonko soppi woon fële ca Ziguinchor ñu ne nag euh, Cour suprême freiné na ko ca kii di préfet ba lañ jox dëgg ñëwaat nañ itam ci vote bu projet budget bu ministère des forces armées ñu ne xaw tuuti rek moo des mu nekk vote boo xam ne à l'unanimité la maanaam ñëpp a ca d'accord Walf Quotidien fësal ci xëtam bu njëkk barok euh, Sénégal ak nag ana lan moo waral kon boobule bor diis lool dikkaat nañ ca ñëwaat nañ itam ci festival des blues bi nga xam ne kon Baaba Maal daf ko waroon amal dañ ko kon randal gannaaw bi nga xamee ne nag kii di Baaba Maal sax moom dafa nekk ci ab dëj L'Observateur fësal ci xëtam bu njëkk déclaration de politique général bi nga xam ne premier ministre Amadou Ba war na ko amal euh, le 12 décembre bi ak naka la ko cay xaar ci wàllum économique santé éducation ak yi ni mel le quotidien fësal ci xëtam bu njëkk euh, li nga xam ne kon moom mooy nutrition maanaam lekk gu baaxul ak fii ci Sénégal tolluwaayam ak nag xale yi am euh, zéro jàpp cinq ans ñu ne ñoom la gën a sonal situation yi nag ñu ne gën a garaawee ca Louga ak ca Matam enquête fësal ci xëtam bu njëkk cinquième séminaire intergouvernemental diggante France ak kii di Sénégal ñu ne nag fi mu nekk nii daal priorité bi mooy urgence yi maanaam ay loo xam ne daal dafa taxaw temm ngir ñu saafara ko ñu ne ci loolu sax euh, France nee na dina jàppale Sénégal lu toll ki cent milliards de francs CFA direct news fësal ci xëtam bu njëkk. chantier yi nga xam ne kon moom mooy xaar euh, Amadou Ba dikkaat nañ ci séminaire intergouvernemental bi am suñu diggante ak France mbirum santé agriculture éducation sécurité ak nag déclaration de politique général bi nga xam ne kii di premier ministre war na ko amal. Vox Pop lañ koy jeexalee ñoom nag fësal nañ seen xët wu njëkk mbirum contrat d'armement boobu nga xam ne euh, ministre de l'environnement Aliou Ndoye dikkaat na ci nee na nag moom loolu sax gisu ci scandale bi nga xam ne moom la euh, nit ñi di wax.